Cerno Farimata moo meññ Mam Balla Mam Balla moo meññ Mam Moor Mam Moor Anta Sali moo meññ Serigne Bamba Serigne Bamba moo meññ sëriñ Fallou aw bu sa jax rema bu sa yaay mbeen soxna Ndoye Ndoye xam mooy maamam Cheikh soxna Bousso ah. moo jur Xarim Mbacké Xarim Mbacké moo jur Ngañ Ñang ngañ ñang moo jur suuf si ñang moo jur maam Abdou Aziz da baax Malick ba kër gi dara nga xam ni maamu Serigne Fallou Mbacké nañ na maamu El Hadj Malick ndax li tax dañoo jël faawaat du wele waaw ak mati ñang jox ko ki nga xamante ni bii moom mooy maam Ousmane tabarkalla waaye mati ñang amu ca leer maam El Hadj Malick am leer ñu jël mati ñang jox ko seer Amadou Bousso Amadou Bousso am ca Awa Bousso ñu jël Awa Bousso jox ko Serigne Bamba Serigne Bamba am ci Serigne Fallou Awa Bousso ci xëyuma Bousso yaay ndee mooy maamam kon réew bi xam-xam ak wilaya ak martaba jarulaay jaay ndax bu ñu woon ngàcce puute tey bu ñu delloo ca dëkk ba lay raama ndax mën si dégg awa buso bi ngay dégg awa buso awa dëkk Camara awa dëkk Camara Ndoumbé Darou ñooñu nga cosaanoo waaye balaa maa dem Serigne Mbaye day ñëw gën a leeral li ma wax ndax li ma wax xam naa ni soo demee des naa leer ci bopp bi Serigne Mbaye kat yaa am na sama xarit. jërëjëf tàccu leen ma Omar waaye tàccu leen ma Omar tàccu mat naa bàyyi ci réew dëgg la ndax Léopold Sédar Senghor ba mu ne ces xalimaam ni PC tous vokora frappale balafon loolu Mamadou Lamine Diallo li muy baax baax bokku ci xëcc leen rit yi xëccaat leen yi waaye bàkk leen junjum yi loolu géwala ko moom dàccu leen mu amar bu baax a mbokk yi maa ngi jégalu ci kàddu yi may bëgg a yëkkati loolu mooy tànkub wajuru jigéen wu président Mamadou Lamine Diallo waaye tànk wajur woom wu góor muy Adama Diallo ancien député maire bu Sédhiou Binta Mané ma ko jur mooy maamu Sadio Mané moom lañ suur ngindiir ku bëgg Sadio Mané tàccu sa loxo ca kaw. waaw waaw Sadio jéeri doon mbalam taan ci réew dëkk dama ni gudd rëy dara xonqal mbaxana jërul laa jaay dama yaay tabax jàkk ginaari korité yi di joxe xarit tabaski di daggal bi yee nit ñi Makka ñuy ziar gi Seydina Mohamed benn ngi ci man benn ngi ci maître Amadou Dieng tàccu leen président Mamadou Lamine Diallo dama ni luy duuf ci nag wi ci cin li kii lañ bëgg le 25 février 2024 ah bu ñu dëppee urne yi ñu fal président Mamadou Lamine Diallo mu dempale jël réew mi teg ko ci kot. ku bëgg loolu tàccu président Mamadou Lamine Diallo vous la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ak seen sant di di ci jiital El Hadj Mama Faye ah mooy kilifa bi mooy kilifa jotaay bi teewal fi dem si yàlla si Ngalla Diop. moo magu teki fi ci yara dan nako yalla yeureum xare ko aljana ñu ngi gërëm di sante ma job mo la coordination teki responsable bu am responsable bu am gis-gis bu am xam-xam mel ni tekki ni ñu bëggee suñu responsable yi mel ñu nuyu bu Samb mooy suñu présidente comité électoral ñu ngi nuyu évidemment Babou Sarr Babou Sarr ñu ngi koy jox nuyoo mu nuyu waale délégation bi yëpp ak ñëw ñu fi teew yëpp mënuma leen lim

mënta continuer mënta continuer géej du jël jox ay bateau chinois coréen xawma italien espagnol incha allah 24 24 fi ci avril 2024 loolu yëpp dana dakk danañu rompre contrat yoy su nekkee ay contrat lañu Union européenne maa ngi koy wax am nañu accord de pêche ak ñom novembre 2024 lay jeex danañ ko auditer su boobaa ñu suñu géej gi dinañ del fii parce que fi ci Sénégal. juróom benni téeméeri junni sénégalais góor ak jigéen ñoom ñooy yëngatu ci miiru géej gi kon nag ñooñu seeni am-am seeni koom-koom dañ ko war a sàmm ak ñaari loxo loolu mooy sama kàddu gi ñaareel bi ñaareel bi mooy affaire suuf lébu yi sonn nañu ci affaire suuf muy Hann bel muy Ngor muy Wakaam muy Yoof ñu ngi jël seeni suuf di ko pasar pasare di ko séddoo seen biir Amadou Ba directeur général des impôts et des domaines ñaari loi yu fi am ci biir souf ci Sénégal mom moko dox mom moko liguey mom moko moo ban ko wote lan ci jublu won nak lér na nañ moy jël souf si ñu seddee ko seen bi fu ñu waxoon né projet d'utilité publique mo amone muy aéroport muy base militaire lébu yi jël seen souf parce que lébu yi ñu bax lañ ku ñew fi Dakar ñu yaatal la ku ñew fi Dakar ñu may la soxna ku fi ñëw yi jaxaar ñu jox la jàkk yi ngay nodd ñoo fi Dakar ngay jàngale alxuraan ngay na loobu lebi yi ñoom ñoo ko mën suñu ñëwee ne dañoo bëgg a def projet d'utilité publique muy aéroport muy base militaire muy école muy gendarmerie la muy jël seen suuf joxe ko waa léegi projet yooyu suñ jeexee jël aéroport bi yóbbu ko fële ci Njas yaa xayti xanaa lebu yi kenn mën nañ leen delloo seen suuf loolu mooy yoon loolu mooy dëgg loolu justice babu Sarr wax na ko ñii dañoo bëgg jël forêt de an bi pasare ko de ko seen domaine public maritime bi pratiquement léegi ñu ngi attaqué di les euh, euh, ak nous yi kon nag dama ne dama ne lu ci gën a gaaw ñu takk jigéen ñi ngeen jël carte de bu ngeen wax seen i njaboot ñoom ñëpp ñu mobiliser wu incha allah rabbi 25 février 2020 25 février bii nañuy tàmbali wote bi su boobaa Mamadou Lamine Diallo tekki ngeen wateel ñu ngeen wateel coalition MLD tekki 2024 mooy fas bu weex bi mooy leer bi loolu mooy yoon bi incha allah rabbi xale yi danañu tekki am njëriñ terali seeni waajur su boobaa incha allah Sénégal dana jëm kanam loolu laa leen bëggoon wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh